san euh, ñu waxtaanee euh, cër gi suñu borom jox euh, ñenn ñi ci ay kilifa nga xam ne dëkk bu ñu nekk rek dëkk boobu war nañoo sant. waaw jërëjëf Ba Cheikh comme ni ñu ko waxee xam nga suñu borom subhanahu wa taala ay mbiram yëpp daf ko teg ci organisation ak ordre xam nga bi yàlla di yebal Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yonente yi ko fi jiitu woon. li mu leen sant moom mënoon na ko defal boppam. maanaam mënoon na nekk fa mu nekk te moom rek moo xam fa mu nekk di wax jaam yi di dégg muy tere ñuy bàyyi muy digle ñuy def mais loo gis rek daf ko am foo xamante ni fa la koy fa la koy jaarale gis nga yonent yëpp sayyidina Jibril alayhi salaam moo doon wàccee si ñoom li nga xamante ni moom moo di mission bi yonte yàlla aadam nga xam ne moom la yàlla njëkk a bind si kaw suuf bi mu paree bind ki nga xamante ne moom moo di maam Xawaa ma ne la foofu aussi nit ñi dañuy defee ne comme ni ñu koy faral di waxee ne jigéen ñu ngi ko bindee si faaru càmmoñ loolu du lislaam du alquran yàlla waxul loolu yàlla dana ni mu bindee maam aadama noonu la bindee maam Awa maanaam ni mu bindee góor noonu la bindee jigéen. waaw mais loolu xam nga rek euh, gàkkal moom ak wax loo xamante ni wóoru ak loo xamul yàgg na si jamono. loolu foofu rek lañ koy lañ lañ koy teg ak ñàkk xam xëy na mais yàlla boo demee si alquran dafa wax ne yaa ayuha naasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waaxida wa xalaqa minha zawjaha bi mu paree si loolu nag wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arham inna allaha kaana alaykum raqiba hmm. aaya boobu sax moom la ñuy fase wala bari na ñoo nga xamante ne moom la ñuy fase sëy aaya boobu noonu bari na ñu koy jàng ndax fàttali nit ñi cosaanu doomu aadama fàttali nit ñi si nga xam ne moo di seen origin ak itam lii tax yàlla indi leen si kaw suuf ak fi ñuy mujjee ëllëg yàlla ne dama bind maam aadama teg si maam xawaa si benn bakkan kon ñi di wax ne dañu ji bindee jigéen si faar boo xamante ni faaru càmmoñ la moo tax mu dëng ay nàngam yooyu dafa nekk loo xamante ni wax bu yàqu la du alquran du sunna du lislaam waaw loolu benn point la woon rek buñ doon taxaw yàlla bi mu bàyyee loolu lii nga xamante ni moom la euh, sas maam aadama loolu la sas itam ki nga xamante ni moom moo di maam Hawa maanaam góor ak jigéen ñoo bokk li nga xamante moom moo di ay devoir si diggante bi ak borom bi subhaanahu wa taala waaye itam ak ay àq yoo xamante ni day dox seen diggante en tant que ay doomu aadama léegi bi yàlla créé àdduna nag dafa jël ay yonent ay nit tànnal leen boppam def leen ay yonent ñu tàmbalee si yonte yàlla aadama comme ni ma ko waxee ba si Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñëpp dafa am koo xamante ni moo nekkoon intermédiaire seen diggante ak borom bi subhanahu wa taala nga xamante moom moo di Seydinaa Jibril alayhi salaam li tax ma tàmbalee foofu damay def benn historique bu gàtt rek pour wax ni nga xamante moom la ñu war a fonke nitu yàlla ak yaakaar bi nga xamante ni moom la ñuy am bu toppee seen ay ndigal bàyyi li nga xamante moom moo di seen ay seen ay tere ndax jibril alayhi dafa am bés yahuut yi wala yéefar yi ña nekkoon màkka ña àndul woon ak yonent sallallahu alayhi wasallam xaw a sii su mer ne kii li mu ñuy wax ci alquran il faut ñu xam kan moo ko koy andil di ko wax yonent sallallahu alayhi wasallam ne leen kii andi alquran bi jibril la tudd alayhi salaam ñoom ñu ne ko bés nit ki tey jibril suñu noon la Mm-hmm. waaw parce que comme moom moo lay indil mission bi waxatuma sax yow waxatuñu sax yow mais moom si boppam suñu ennemi la à partir d'aujourd'hui yàlla ne ah bon mu naa yàlla ne qul man kaana aduwan li jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan li wa hudan wa bushra lil muminin nee na képp koo xamante da nga jóg noonu jibril yàlla nee na man maa dogal muy wàccee alquran si sa dënn boobu di ko si sol si ndigalu borom bi subhanahu wa di dëggal li nga xamante ni moom moo la fi jiitoon waaye mu nekk njub moo alquran nekk nekk mbégte ñeel ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko gëm nekk njub ak mbégte neel ñi nga xam ni ko gëm ñi ko gëm mooy ñi topp ndigal yi bàyyi li nga xamante moom moo di tere yi yàlla teg si ne man kaana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rasuli wa jibril wa fa inna allaha aduwun lil kafirin yàlla ne ne képp koo xam da nga nekk noonu jibril ak malaaka yi ak yonante yi ak mikail moom te malaaka yi malaaka la yàlla nee ne man considéré naa la yow sama noonu mooy tey jii nii ñi nga xamante ni itam suñu borom subhanahu wa taala daf leen sàkk ñu nekk ay awliya maanaam nekk ay ay ay waliyu comme ni ñu koy wax si olof ñooñu itam képp koo xamante ni da leen di noonu yow jàppal ne yaa ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ku noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu nga yàlla subhanahu wa taala te ku noonu yàlla subhanahu wa taala mbir moom comme ni ñu koy waxee gisuma la mbaaw ndax yàlla moom moo wax si xaditul qudsi mu ne man aadaali waliyan faqad aadantuhu bil harbi mu ne képp koo xamante da nga fekk sama waliyu nga jàppee ko ennemi yàlla nee na amatoo kooku affaire man nga amal affaire kooku day toog man ak yow ñooy jàmmaarloo ku jàmmaarloo ak yàlla nag luy tooy si yow lay jógee du dëgg te boo boo boo sàgganee boo deewee ñu fudd sa ndigg loolu dafa nekk loo xamante ni point bu jara leeral la li tax ma koy wax mooy suñu borom subhanahu wa taala suñu ba jur baaraam yi ñoo bokk benn loxo waaye tolloowuñ mooy nit ñi ku ne ñëpp yem mm-hmm. yow xamuloo li xew tey ji am na ñoo xamante ni yàlla mooy bind mooy doxale noonu tey jamono génn nañ àdduna ñu ngi leen di ñaanal leen nangam mais am ñoo xamante ni boo demee seen xabru ba tey day génn dépense. ah waaw am na ñoo xam ne seen xabru day génn dépense loolu la yàlla dogal looloo neex yàlla lu dëgg parce que ña nga xamante ni ñooy def loolu seen ngëm-ngëm moom moo toll foofu nga xamante ni moo tax ñuy def loolu kon nit ñi li ma bëgg a wax rek mooy képp li yàlla. di maye nag yemalew ko si kenn nit dafa may kii lii may kii lii may kii lii may kii lii soo bëggee noppaleku nag képp koo xamante ni nitu yàlla rek nitu yàlla la jël ko nga def ko si sa biir xol képp koo xamante ni nag yow bokkul si lislaam wala leneen wala jóg pour xeex lislaam kooku leneen la mais jullit si bi jullit si boppam warul sax noonoo ak mbokk jullitam waru ko yéene lu dul jàmm waru ko yéene lu dul salaam rawatina koo xam ne dafa am cër bu mag suñu borom si borom bi subhaanahu wa taala kooku lii la war mooy nga bëgg ko sopp ko topp ay digalam bàyyi ay teram fi may jeexale mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon rek dana al mar'u ma'a man ahabba mu ne nit ku nekk ëllëg yawmal qiyaam yaax ka nga sopp yéenay ànd kon kuy sopp soppal ku baax. Mhm. ah soppal ku yiw soppal nitu yàlla ngir bu ëllëgee mu mën a nekk loo xamante ni njëriñ lay doon si yow mais dafa am condition nga topp ay ndigalam tànk mu dëkk ak ak Alxuraan ak sunna bàyyi ay tereem tànk la mu lay tere dëppoo na ak li yàlla tere ak li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tere te loolu dañu ko yaakaar si suñu mag ñu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi. Mhm. kon nañuy topp seen ay ndigal tey bàyyi seen ay tere tax ndax ñoom ah lu ñuy def rek ngir ñun la. Mhm. ñun ñun la ñoom. te lépp ci yàlla ak yonent bi la. sallallahu alayhi wa sallam seen yëfi bopp. déedéet waaw ah, kay génn si. dafa ñu dara ngir seen bakk bakkan yàlla Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo jëlee si suñu ah. moom nee dafa amul sax jot hmm. at mi douze mois la hmm. mu xaaj ko ñaari xaaj hmm. si mois yi day julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam six mois yi da koy tagg ñu ne ko bindal mu ne salaatu sitta bi matxi sitta tati batta ma abtisaa i mhm. nee na six mois yi damay julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ndax sauvetage la déggoon naa sëtam ba almaktum anhu mu ne jamono ni mu tëddee li ñu mën a sauver mooy di saxoo salaatu ala nabi di julli Seydina Muhammad beneen bi mu ne ma koy tagg rek ndax ku tagg yonent bi sallallahu alayhi yàlla nga ko nga ngay ngay feelu ndax yàlla moo ko njëkk a tagg moom Seydina Muhammad mm. sallallahu alayhi wasallam bi ne ba pare mu ne te du taxaw maanaam tey jii yàlla yonent bi la bëgg sallallahu alayhi wasallam ségrégation saa saa yoo xëyee saa yoo xëyee rek di nga kuy ubbi xasida ak bu mu mën a doon di ko jàng mm. te ñaar la làmboo tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli si la lu baax mm. tere la loo xamante ni sofaan la c'est aussi simple que ça mm-hmm. kon yu mel noonu lii war mooy toujours seen ay mbir ñu koy fësal mm-hmm. nit ñi di ko xam parce que mm-hmm. comme li Baye wax liñ doon def yëpp pour ñun la te dégguñu ko seen bànneexu bakkan si ak sunna seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa bi nag boo nekkee si réew mu mel ni Sénégal yàlla baaxe la dimbali la nga dëkk fi ay mag ñu baax ñu mel noonu li la war mooy nga ngoy si ñoom téye si ñoom te saa jullee di leen ñaanal yàlla gën a yokk seen yërmande li desandi suñu borom subhaanahu wa taala teg ñu si li nga xamante ne moom moo di yoonu njub ci mhm. jub nag yàlla moo ko xam bàyyi cheikh yàlla ñu yàlla def ñun ñëpp ñu nekk ñoo xamante ni ñu jub lañ ñu yiw ñu sell mhm. yàlla nañu neex borom bi subhaanahu wa si lépp loo xamante ni ñu ngi koy dund diggante bi ak moom moo tax mhm. waaw vas-y vas loolu laa andi woon tey rek bàyyi cheikh ne juste dafa nekk benn Euh, euh, contribution wala idée boo xam ne dafa nekk sama xel fan yi ma ne su ma ñëwee tey si Yeewu Leen bi incha allah mm, ma fàttaliwaat sama bopp ak ndaw ñi ñu gën a góorgóorlu si suñu diggante ak kilifa diine yi mm. ak fu mu mën a doon foo jàpp rek ngoyal mm. ndax Sëriñ Tuubaa dafa baax maay cheikh radiallahu anhu nee na la foo jàpp rek baax na fa kullu wirdin ñu murida li xadratil ilahi wala naxida sawaa intama ila al jilani aw intama ila ahmad tijani yaa ngi dégg nee foo mën a jàpp rek si wirdu yooyu baax na. Mm-hmm. ñu ne lu tax mun a is kulluhum qad an ala sawaab. Mm-hmm. ñoom ñu ngi si mbaax ñu ngi si yiw ñu ngi si li nga xamante moom moo di siraatul mustaqim Baye Cheikh. Mm-hmm. kon ñun ndaw ñi nañu góorgóorlu. si kilifa diine yi bu baax a baax Baye Cheikh. ñu ñu góor góorgóorlu bu bu bu baax dëgg la de ñu góorgóorlu bu baax moo tax sëñ Mountakha barki démb bi muy def déclaration wam bi. Euh, ñun la waxal waxul ak soxna Aïda Diallo kese ñun ñëpp la waxal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp donc nañu farlu góorgóorlu mm-hmm. euh, di euh, euh, topp ci yoon wi nga xamee ni ñu ngi ñuy ñu ngi ñuy digal pour ñu jaar fa. Mm-hmm. moo xam mun Mountakha moo xam mag ñu baax ñi nga xam ni ñoo ngi fi te dem demagunu yàlla nañu fi yàgg te ànd ak wér. ay kàddoom boo ko dégloo da xam ni ñëpp la waxal. voilà mm-hmm. ñun la waxal parce que ñun ay doomu aadama rek lañu. voilà comme disait l'autre nous tous des pêcheurs. gis nga bi muy wax. ma ko ma ko seetaanee. sama xel dafa dem si maam Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh. radiyallahu taala anhu nga xam ne dafa daan bariyal Euh, euh, jataay yu mel noonu hmm. sorti yu mel noonu ñaaxaat nit ñi hmm. ñaaxaat askan wi te boo dégloo sëñ Mountakha boppam sax hmm. dañ njëkk ñaax ah, ne nañu góorgóorlu tàmbalee ko si suñu jëmm ji ak képp koo xamante da yaakaar sëñ bi ndax wax na ko muy wax bu am solo nekk naa ne sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi te lu mu diglee doo ko def lu mu tere kenn du la si jiitu yow sa yoonu bopp nga jël waaye sëñ bi génn na si yow bu yàgg sëñ Tuubaa waxal na ko boppam radiyallaahu taala anhu nee na képp a xamante ni daf lay yombalal aljana te tegu loola si sunna Seydunaa nee na kooku mu ngi lay nax mhm. nee na ku la yombalal aljana moo la ko xañ mhm. ndax yombul ndax moom li mu am jaamu yàlla dëgg-dëgg ak pas-pas ak pasteef bi mhm. sëñ Muntaxa di wax moom moo ko may ndaw ñi nag dafa laaj jamono ji surtout réew mi fi ñu toll ñu gën a góorgóorlu xam fi ñuy teg seen tànk Baye Cheikh c'est très très très important mais ma riirandoo lu jóg nga topp si te jëmewu la fenn bu ëllëgee la say tooy si yow donc ak kuréel di jugé te xamuloo jugement de valeur yu de son paradis waaw xam nga borom bi subhaanahu wa taala taala yàlla suñu borom subhaanahu wa taala dafa am lu am solo ay saaga ak xaste fajul dara. déedéet Serigne Touba ku ne ku ne ku ne toppatoo àjjana. déedéet xam nga tey jii pour man comme ni ñu koy waxee l'insulte moom est l'arme des mhm. saaga moom ak xaste mooy ñi nga xam ne amuñu argument. wala li ñuy wax amuñu fuñ ko teg wala quelque chose comme ça. Mhm. wala tey jii rek. su ma la nee rek xaste rek saaga la. xasbunallahu wa ni'mal wakiil bu la ko dara jaral. ah fu muy takk xam nga lu tax. boo xaste xaste day des. mais bu ma la saagaa bu subaa buñ jubóoyee dama la lan laa wax dama laa saaga rek. waaw jaru ko. bu nga fay ñu loolu nga wax noonu. loolu nga wax noonu. teg ci astaghfirullah xam nga lu tax. damay tooy yoon xam naa mais yoon sallallahu alayhi wasallam dane indi inna min akbaril kabair an yal'ana rajula walidayhi nee na bokk na si bàkkaar yi gën a mag nit ki ŋàññe wala mu saaga boppam ñu ne ko nit nu muy ŋàññe wala mu saaga boppam mu ne mooy mu saaga way juru jàmbur wala mu saaga maamu jàmbur wala mu saaga baayu jàmbur nee na loo def si baayu jàmbur rek delloo ko si sa baay wala si sa nàngam wala si sa nàngam moo tax fayuntoo baaxul yàlla ne bu ñu leen defee sofaan mu ñë mu ñë leen rek ngir sama jëmm xam nga ñun ñëpp dañuy tooñ borom bi subhaanahu wa taala mm, waaye waaye yàlla xajoon nañu mm. kon ñun bu ñuy tooñante suñu biir nañuy jéggalante te yàlla rekk tax mm-hmm. mais tamit ñu fexe fexe fexe ba lépp loo xamante ne nii mm-hmm. euh, ay ñaawteef la wala saaga la wala lu demee noonu ñu moytandoog ko ndax loolu moom moo ñuy sauvé mhm. yaa ngi koy wax léegi réew mi salaamaaleykum maaleykum salaam ñu tifaar la ba nga tooy xëpp mm. te xamal xamaluñu la dara loo xamante ni tax nañu tifaar la parce que xool nañ gar mi ah. neexu leen mm. wala ni muy solo ah, neexu leen wala doxinam neexu leen ñu jàpp la comme ni ko gars yi xale yi di waxee xorom la ah. ba nga saf sap ñu tegale na leen loolu nag jëmale wut réew fenn ndaw ñi daal bu ñu bëggee mucc la sëñ Touba waxoon rek yaa yu wax sibyaanu laa tastaxilu an topp yàlla rek ak yonent bi mag ñu loolu rek la ñu jàngale lépp loo xamante ni lu mu leen intéressé mm. te njub li leen koy may ngeen sàkku xam boo xamante ni leen di jëriñ àdduna di leen di jëriñ àllaaxira kon bàyyi mu ngi noonu li ñu mbay mm. xam naa oustaz Assane ni nga tey ah yow ñoom oustaz si du ñu may parole cër bu am solo ñoom nii la ñu mel boo xam ne bilee gaa yokk dañu Modou Fall ak bi Mbacke xaw ma eh, moom Baye Cheikh am na lu mu ci dolli. Ah, nii rek wane ne sunu sang bu tedd boobulee waxul rek ak benn nit. àdduna bi yëpp la waxal. ñëpp la waxal de wallaay balaay sax. xam nga Baye Cheikh. boo dee kilifa. te doon baax. yàlla jox la ay cër. da rus a gàcceel nit. Mm-hmm. boo déglu ay kàddoom. Mm. rus naa gàcceel kenn. daf moo tax mu jël ñépp wan leen daal dëgg da gor su baax su bëgg a baax. te bëgg a jariñ réewam yaa ngi nii. weneen yoon ku ci jàll nag dëgg-dëgg weneen yoon woowu nga jaar xamal ne boo woowa yoon jagu du yoonu gën. sang bi fi mu waxee dafa foor de. Mm-hmm. ndokk ne na ko na ko nit ñi dégg. jëfe ko te jëfe ko. ñëpp la waxal. mais Baye Cheikh maa ngi lay wax dara. mbir dana jóg. nit ñi def ko occasion ku ci nekk bëgg cee wane sa bopp c'est pas bon jagul non non non lu baax dafa am loo xam ne lii dafa am cër ñoo xam ne ñi ñoom ñoo ko moom seen wàll la cër boobu bu jotee da nga koy bàyyi ñooñu nga xam ne nii mooy seen wàll bu nu ci waxee rek war naa ji c'est important parce que adduna bi dëgg dëgg ñëpp ñoo ko bokk ku ci nekk war ngaa war ngaa bàyyi sa morom xel ku ne sa bopp doy na la misaal waaye daal dëgg-dëgg dañuy ñaan daal sunu sang bi yàlla guddal fanam te muy ko te yàggal ko fi waaye daal jàngalaat nañu àddina ci ñu xam nag laay wax mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy xool rek waaye gisuñu mm-hmm. am na ñoo xam ne ñuy déglu waaye dégguñu mm-hmm. am ñoo xam dañuy séenu du gis dara. mais moom de moom fi mu waxee. ak ni mu waxee. wax na daal ci place su kilifa gu wér a wér. macha na yàlla sàmm ko tey. te guddal fanam daal loolu rek laa ci yokk loolu laay wax ba benn xale ngi wax ak man mu ngi pàccal mu ngi tóoj ween mm. ko tóoj mu feeñ. waaw mu tóoji nii xam nga tóoj. Mm. mu tóoj nii affaire yi di feeñ. ah non. nga Aida moom ma ne ko muur a sawee nii ba pare. dooga <laughs> Aida. <laughs> waay waay waay mbay ku tooj du xam nga tooj yow. li nga ko tooj affaire yi di feeñ. loolu baaxul Dakar la naan ma Aïda moom. mbalit la ma ne ko muural tooj. benn seconde mënuma wax ak damay wax li. dë dë dëgg tooj. xam nga tooj damay dëggal li gar mi wax li gar mi wax lay dëggal rek. doo tontu xaaral ma problème mu wax ak gar mi ba pare. xam nga Sénégal dama am ku may waxtaanal démb mu wax mu wax bu am solo. Mm. mu ne ma nit ñi dañuy bëgg toujours ñu leen di wax aljana. dëgg la dëgg la ñun ñëpp fa lañ bëgg dem. tey de safara lay yàlla ñu fa yàlla yóbbu. Mm. safara xam nga lu tax. Eh. que yàlla fu mu waxee aljana rek. Mm. wax na safara eh. maanaam fu mu yëkkee carotte bi rek eh. bâton bi jóg na. à côté pour xuppuñu. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bokk ci ay turam an-nadhir maanaam ki di xuppe Mm. parce que nit ki am na foo xamante ni bu fa tolloo faaw nga xupp ko mm. mu xam li nga xamante ni moom moo koy xaar mm. li nga wax léegi dafa am solo yàlla dafa wax ne wa laqad zara'naa li jahannama kasiiran min al jinni wal insi safara dama ko defar tàggat ko ngir ñu bari ci jinne yi ak nit ñi kon am na jinne yu fay dem am na ay yu fay dem yàlla nañu ci yàlla mosu te pare na de yàlla nee na bés yawmal qiyaam day ñëw damay duy safara ba jàpp na fenn safara nekk wa yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid maanaam dolli ma yàlla danaan safara ndax fees nga yàlla nag ndax bonus dafa am bu bonus amee rek andi du ma fees sa ndigal moom a fi bàyyi yàlla na safara ba dama ko waajal ñu bari si nit ñi ak jinne yi xam nga lu tax mu ne la lahum qulubun laa yafqahuna mu ne biha dañu am ay xol yoo xamante ne nii. Hmm. dafa xat. Hmm. yaatuwul. duñ ci seen conscience. jariñu leen dara ñu ne ko ak lan mu ne wala hum ayunun laa yubsiruna biha am ay bët di xool. te du duñu hmm. gis mooy li nga wax léegi. wala hum azaanun laa yasmauna biha am ay nopp yoo xamante ni dañuy déglu waaye du ñu dégg. yàlla mu ne ulaika kal am ami ñooñu comme ay njaay àll. bal hum adall nee na yàlla yi sax ñoo leen tane ndax léeg-léeg mbaam nga wax du dégg mais boo dóoree mu xam ne fii nga bëgg mu jaar fa ulaayika humul xaafiluun hmm. yàlla neen nag ñooñu dëgg dëgg mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo sàggan hmm. kon li nga wax yow hmm. al quran rek nga fi firi du leneen kon yàlla insha allah musal bisu demal allahumma amin eh, kay émission bi du waaraate kese mais tuuti nga am ci temps kon ma noppi ay ëppal nga torop affaire bi neex na rek mu bëgg a jaatal ay xoola dañuy dañu dem ci parti caaxaan yi nag. <laughs> demal yow. waar nañ ñu ba pare. non en man juste li ma seetlu rek mooy ñun on est une population boo xamante ne. dañu taamu kenn laaju ko li ñuy wax yëpp intéressé wu waaye wax rek amul dañu nit au lieu ñu jéem a xool ñun naka la ñuy defee pour améliorer suñu bopp. Hmm. pour gën a baax pour xool li nga xamante ne gis nañ ne dafa bon ci suñu bopp. ñu jéem ko dindi jéem a nekk la meilleure personne bi ñu mën a nekk mais toujours dañuy bàyyi suñu bopp bàyyi yi ñuy def hmm. tout le temps jéem xool keneen ku ñuy projet toog waxtaanee ko wax ko lu bon pare jóg dem feneen au lieu ñu def ah. benn. Euh, prise de conscience jéem a mm. Mm. améliorer ñun suñu ko suñuy dund de mm. tous les jours. mais duñ ko def tout le temps rek on juge jël nit ki tegee ko de côté gaaw ci tamit te xam nañ ni que nit dafay jum aussi. ku ku ku def loo xam ne waroo ko def ñu jéem la baal jéem la yedd jéem la may yow tamit nga devenir une meilleure personne mais on juge tout le temps et duñu xool suñu bopp ndax ñun on est parfait ou pas yaakaar naa ne nañ ko. ko ko laaj ah mais xam naa doon jox xalaatam rek. mais jeex na ah. waaw d'accord jeex na benn juge. mun naa cee dolliwaat tam bu leen ne ah jeex na. waaw benn juge rek tuuti rek. benn juge rek moo am mooy borom bi subhanahu wa taala. excédé di wax man moom am na ñoo xamante ni moom jour jugement dernier ñaan ma yàlla topp seen ginnaaw benn juge rek moo am. est-ce que li yàlla war a wax ak ñoom day yàgg ba nga xamante ni bu ma taxawee seen ginnaaw je risque de de de perdre sama patience. de perdre du temps. en tout cas bu séeree ak saa yi dafa oh soo soo soo soo ma topp ci ginnaaw quoi. am na xam naa dafa yor Firawna suñu benn promotionnaire la woon nee na yow man xiyaam moom. moom bu gaa yi raawee bu gaa yi raawee. moom Firawna rek lay diir. waaw Firawna rek. rek lay diir. bu séenee Firawna rek day taxaw si gannaawam. wala mu day taxaw si kanamam. si kanam Firawna yàlla bu jeexee jeex na ni. kiiru Firawna yow jàllal soxlaawuma la Firawna mii laay wër bu daw dugg àjjana. <laughs> macha allah. li ñu doon kon yàlla yàlla defal sutura. allahumma amiin allahumma amiin El Hadj yàlla nañu yàlla bàyyeeg suñu mag ñi. yàlla nañu euh, yàlla yàlla nañu yàlla fayal suñu mag ñi. yàlla nañu yàlla fayal euh, kilifa yi fi tëdd. yàlla fayal ñu itam ñi fi ne euh, di àndandoog ñun. Hmm. Euh, ci ci ci ci ci diine ci li ñu hmm. jàppale. dëgg la macha allah. xam nga Baye Cheikh ñun senegal yàlla daf ñu may ay ay tànneef. Hmm. yu am solo yoo xam ne yii ku juum rek wala nga jàdd yow la neex. parce que ay mag lañu lañu am yoo xam ne yile dara ñoru leen. ci gillinu ak teg nu ci yoon rek lañ fi nekk mm-hmm. Mm-hmm. parce que ñoom dañu xam li leen yàlla may mm-hmm. parce que xam nga tarixa dafa foor te boo jiitee tarixa am nga responsabilité boo xam ne bii dafa tegu ci son dond mooy ñi nga xam ne nii dëgg-dëgg yàlla leen sàkk waaye nag tubaarkaal te yàlla teg li seen kanam ah yaa leen war a indiqué te ñooñu nag dëgg-dëgg ku leen topp du te loolu macha allah bari na fi kon nit ki am na nit ñoo xam ne nu ñu mel rek ñoom ñoom ñoo seet seen ñoo choisir seen yoonu bopp ñu nekk ñu ñu defee ne foofu la. te loolu dëgg-dëgg jaaduwul. kilifa yi daal nañ leen jóg cër. te it bu ñu gisee lu ñu war a wax nañ ko wax. bañ cee teg bañ cee teg bakkan. ma Abdou Aziz si noonu la meloon. bañ cee teg bakkan bakkan rek dara maan. bañ cee teg parparloo. Mm. bañ cee teg péete. Mm. ñett yii dina tex dëgg dëgg dëgg làqu. te moo te loolu daf fi daf fi bari. amul njariñ. amul njariñ te te te nit ñi léegi euh, macha allah seen xel yi tubaarkàlla yàlla leen ko jox. nu waay nu waay tëral rek xam nañ ko. soo doxalee tuuti dañu xam ne yow mii li ngay def ci yoon nga ko teg wala teyoo ko ci yoon. boo ko tegu ci yoon nag nit ñi xool la rek. te jéem a tegu ci yoon ñoom. macha allah donc yàlla ñu yàlla fayal sunu euh, kilifa yi euh, mun tax yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér